laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah daaru bayre faal couture boutique bii la ñëpp di wër ngir liggéey bu sell akub xarañ ci lu jëm ci wàllum ñawu góor ay modèle laxasaay bay faal yu taaru bundu kër seex rafaal yu couleur boo bëgg ak baylaat turki njaareem soin bu lépp la ñuy ñaw di jaay ba ci dàll costume africain ba ci mbaxana lépp disponible ci boutique ba doxantul gaaw mbaa nga woote fa def sa commande ñu jaay la daaru bayre faal couture mi ngi géejawaay ci amoo 6 dañuy livrer ba bitim réew numéro bi di 77 507 67 25 wala 77 640 93 10 A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum mbokki muridi, mbokki julidi Ñu ngi leen di nuyoti bu baax te di leen siaré. Di leen ñaanal suñu kaddu fekk leen ci jamm. Nañ leen ko waxe won. Non lañ ko fasiyena and yeen sa su nek ci wëru koor gi, inshallah ba kérok weer wi di feeñ ñuy julli kor yi ñu ngi fii tey fii nga xamante ne mooy paaleen ñu ngi ci buntu kër gi nga xamante ni mooy buntu këru sëñ Mor a Fall moom maam Cheikh Ibrahima Fall jàmbaar jooju nga xamante ni de 1950 à 1954 toog na jotaayu Cheikh Ibrahima Fall ñu fekk fi ki nga xamante ni mooy xalifaam di jëwriñam di sëriñ Abdou Rokhaya mu ànd kook mbooleem rakkam yi nag mbooleem ñi nga xamante ni mooy taalibe yi Baye Fall yi mbooleem seex si ci liggéey bu rëy bi nga xamante ni sëriñ Touba diggaloon na ko Cheikh Rafal muy ndog yi ñuy togg di ko waajal bis bu ne di ko yóbbul sëriñ Touba moom lañ fas yéene tey teel a ñëw ci kër gi jëlal leen li nga xamante mooy liggéey bi waaye jëlal leen ay kàddu yuy leeral liggéey bi ni nga xamante moom lay doxee dinañ jël soxna yi waaye xool jëwriñu waañ wi wala koo xamante ni xam na ni liggéey bi di doxee ñu séq ak moom waxtaan buñ mënee sax am koo xamante ni jege na loolu sëriñ bi waxtaan ak moom lépp rek jëm ci li nga xamante ni mooy liggéey bu rëy bii ndax mbokk yi xam ngeen kër gii di kër sëñ Abdou Rokhaya di kër sëñ Mor Talla Fall ñaari buntu kër Cheikh Rafal it fi lañ toggee ndogu maanaam fi lañ sofu buñ tuddee kër sëñ Bassirou Fall Awa Jaxate ki nga xamante ni mooy sëriñ Aline Badara Fall di xalif ak sëñ Talla di xalif ak sëñ euh, Bassirou Fall Awa Diakhaté fii la sofu fii lay toggee ndogu waaye tey njabootu sëñ Amsatu Fall gi ki nga xamante ni mooy sëñ maam Cheikh mu sëñ Talla moom it fi lay toggee ndogu sëñ Amsatu moom maam Cheikh Ibrahima Fall kon nag nañ àndandoo ñu daal di tàbbi ci biir mbooleen li nga xamante ni am na fii ci wàccaay ndog yi ñu jëlal leen ko wane leen ko ngeen dundandoo ko ñun ni nga xamante noonu lañ koy dundee jaa ngeen jëf asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu te di leen sant te di leen gërëm di ñaan nag di teewe ko ay déwéni déwén ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall ñoo ngi ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi téwér di ko ñaanal sëñ di Fall Modou Mbenda di ko ñaanal sëñ Abdou Rokhaya ak rakk yeeg taalibe yi ak soxna yeeg bépp jullit ndog yi dal mom jambar lañ dal ñi ngi ci dal wax deug yalla def nañ ci seen yene yep li man lepp ñing ko ci def ñi ngi leen di sante di leen gërëm di leen ñaanal ñu yag fi teewir barke mam Cheikh Ibra. alaykum yeen waa Daaru Bairé Fall TV no ngi leen di siyaare day rafetlu seen taxaway ci yi. kër gi moom daa baaxoo bu mag waxee ba noppi rek daanaka kaddu gi moom genn la <laughs> waaye noo ngi sant tey ñaan tey jiital siyaar bi ñaan li sëñ Mountakha Mbacké sëñ Amadou mi nu nekk bii nag kër Cheikh Mor Talla Fall fan mu gudd lool waan da ko di ñaan nag ndogu yi moom fi mu ko jëlee yàlla na ko yóbbu fu kawe njortam nu fekkee lépp te tal ko barke sëñ Touba ak Cheikh Ibra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ni nuyu baax di leen ñaanal di sant bu di rafetlu seen teewaay fii di jiital ci nuyoo beeg siyaar bi suñu sëriñ sëñ Muntaxa Mbàkke Basiiru yàlla fu guddal aw fanam ay di nuyu sëñ Abdu Roqee mi boroom ndog yi di rafetlu bu baax wax dëgg yàlla ndog yi ak jëf ji ñoo ngi koy rafetlu bu baax wax dëgg yàlla di ko ñaanal fan wu gudd loolu bu ànd ku wér ci barke Baye bu baax ba suñu Baye sëñ Mortala Fall saa yàlla guddal aw fanam wéral ay ciram moo ki rakkam góor ak rakkam yu jigéen ak i magam yu góor a magam yu jigéen ci barke sëñ Touba Cheikh Ibra kon nag ñoo ngi koy ñaare Fall lu mu mën ren daal yàlla na mën diwan lu ko ci barke sëñ Touba sëñ Mortala Fall suñu waajur wa yàlla saa borom yàggale nuyu soxna Ndiaye nag. Mortala mii toog soxna Fat Fall Abdou Sakour <laughs> sama mag yi toog maa ngi jéglu baax ndax yoon wi moom dafa baaxoo su mag waxee rek wax dëgg yàlla ndax man maa ci gën a tuuti <laughs> waaye nag dama cee xaw a dama cee am kontaan loolu daal ci ndog yi waaw ñoo ngi sant daal cee ñaanal baax sañu droxee yàlla na yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram barke sëñ Tuubaa Seex Ibra jërë ngeen jëf ok jër ngeen jëf mbokk yi ci topp gi nga xamante ni yéen ngi koy topp suba ba léegi ci fii yi nga xamante ni mooy kër sëñ Mortala Fall ñu fekk fi jiwul ñi kii ji sëriñ Abdou Rokhaya Fall ñu ngi toogal nag sunu koo xamante ni sunu naataangoo la koo xamante ni ñoo bokk it liggéey bii muy Seydina Ibrahima jaw mi ñu bàyyi ko mu nuyoo ndax moom lañu fa fas yéene seqal waxtaan tey jii ci liggéey waañ bi nga xamante fekk nañ ko kër sëñ Moxtaar la ñu ngi lay nuyu baax jaw te di la siyaar. Ah, jërëjëf sëriñ Mame Mbaye Lo waaye jërëjëf sëñ Souleymane noo ngi nuyu mbokk yi ñu topp si réew mi ak si bitim réew di topp daru Bayré Fall nga xam ne day seen leader boo xam si nii. dafa nekk ci ëttub kër Cheikh Ibrahima Fall bi te yàqali di yaatal ñu ñaanul baax nag jëwrin da ngeen bàyyi ko di sëñ Fallu Fall mu sëñ Modou Binta waaye Cheikh Moustapha Fall Fallilu ak mboolem njabootu sëñ Modou Binta Fall gépp suñ borom yàggal leen fii te wéral leen mel ne noo ngi taaxirlu bu baax rek ngir répondre ci question yi nga xam ne ñëw ngeen fii tey ci ëttub kër Serigne Mortala waaye suñ jiital sëñ Abdou Roqeya Baye Ndam Fall waaye sëñ Abdou Sakkoor ak mboolem njabootu sëñ Mortala Fall bi jërëjëf jërëjëf Seydina Ibrahima ñu ngi lay fay bu baax te di la dalal itam si jotaay bi xam naa tey nag day dañuy daal di dugg ci li nga xamante ni moom lañu fi fekk muy tey it mooy li nga xam ne moo ñu muy ndog yi tey boo ñu doon wax euh, fii nga xamante mooy kër sëñ Mor la seenub ndogu naka lañ koy waajalee loo ñuy jërëjëf sëriñ Mame Mbaye euh, kër sëñ Mor nag ni ñuy waajalee seen i ndogu mooy niñ koy waajalee si buntu kër maam Cheikh Rafal yëpp rek ndax ku ne xam na ne waxtu wu nu xëyee. soxna yi war a saytu ndogu yi euh, daanaka huit heures fi la leen fekk euh, kenn ku si nekkit la nga xam si ni mooy sa cin te ñu war la koo jox mu jumtukaay yi nga war a jëfandikoo su boobaa ñu teel la ko jox nga mën koo faggandiku ba liggéey bi mën a mucc ayib sëñ Mame Mbaye euh, boo ñu doon wax cin yi niñ ko composé fii si kër gi. waaw cin yi nag niñ ko composé si kër gi sëñ Mame loo Lo ku ne xam na ne sëñ Abdou Rokhaya Fall mii di jëwriñ sëriñ Mortala dafay am cin. waaye rakkam yu baax yi nga xam ne ñoom la bokkal sëñ moo taalaat am nañ fi ay cin sëriñ Bada mu sëriñ Taale Yaasin muy xalifab sëñ Basiru Fall Awa xam na ne sëñ Basiru Fall Awa mooy ñetteelu doomu am Cheikh Ibrahima kon tey jii ab xalifaam fii lay toggee ndogu muy sëriñ Bada mu sëñ Taale Yaasin eh, ginnaaw ci nal sëñ Abdou Roqaya ci nal Baye Ndam Fall dafay nekk waaye sëñ Abdou Sakkoor ñu naan ko sëñ Abdou Siini moom it ci na mi ngi fi boo ñëwee nag si sëti sëñ Mortala yi da ngay indi sëñ Cheikh Fall Khadim nga xam ne moom mag si seti sëriñ Mortala Fall yi moom it cinam mi ngi fi waaye sëriñ Lamp mu sëñ Bassirou Fall Khadim Mbodj moom it cinam mi ngi fi sëriñ Bada mu sëriñ Abdou Assis mu sëñ Mortala moom it cinam mi ngi fi waaye sëriñ maam Cheikh Fall moom wax naa ko léegi muy Daaru Marnaan cinam mi ngi fi waaye cinal waa ndaween gi nga xam si ni tey dañoo toppoon sëñ Mortala muy waa Kër Baye Tall Ndaw ñoom it seen cin mi ngi fi ak sëñ Bada mu sëriñ Talla Yacine moom it ku ne xam na ne fii lay toggee moomit it cinam mi ngi fi ak mboolem njaboot gi nga xam ne ñoo aji si kër sëñ Mor kenn ku si nekk tey boo xëyee da ngay ñëw liñ la war a jox ñu jox la ko waaye nag la nga xam si nag moo koy yokkal di ko taaral bañ mën koo xool kooku moom kenn ku nekk yaa koy fàggandiku sa bopp jaayante ko di ko defaral sëñ sëriñ bi si liggéey bi mu mel na daal ci nii noonu lañ ko composé fii si kër gi nga xam ne ginnaaw ñooñoot ñu jël waa kër sëñ Baara Ndiaye mu seigne Mbacke ndjay mi nga xamne moy mooy jëwriñi kër sëñ Mortala nga xamne legui buñ duggé ci duggee biir kaddu seigne Abdou Rokhaya mom moko yor amana na ñun lii ñuy leeral rek dañ koy leeral mu jëm ci walum wañu waye buñ bu tay ji ba war a wax si kaddu keur gi koku mom seigne Mbacke Ndiaye moom sëñ Baara Ndiaye mooy jëwriñi keur seigne Mortala mom moy leeral li nga xam ci ni tay mom moy liggéey bi waye ni dal dañ koy amélé ci keur seigne Mortala bis bu nek waxtu bu nek at mu nek euh, seigne mam Cheikh Fall mi nak di doomi seigne tala mu am satou Fall mu mam Cheikh Ibrahima Fall moom it ku na xam na ne ren lañ ko booleeg soxna su mag si nekk si kër gi mu yaa Xadi Jóob cin loo xam si ñoom ñaar ñoo ko seq loolu nag dañ si santaat yàlla bu baax mën na am bu déwénee mu féetoo cinal boppam loo xam si dina ko mën a ànd ko njabootam sëñ Mame Mbaye kon mën nañoo wax ni ñetti buntu këru Cheikh Fall ñoo nekk fii bii kër sëñ Mortala waaw ñetti buntu kër yi Cheikh la fi nekk sëñ Mame Mbaye ndax boo jëlee sëriñ Mortala mi ñaareelu xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall fii moo di ëttam ndax wax nañ ne sax ne fii nga fekk ñëw tey bi fi eh, siñ mortaale nekk fii moo doonoon këru boppam fii nga toog tey moo doonoon kër siñ mootaal ginnaaw ba sëñ Basiiru Fall ginnaaw ba sëñ am satu Fall mam mbay dama laa bëgg a leeral foofu lu ndaw mooy sëñ Basiiru Fall benn doom bu góor la fi bàyyi tuddee ko sëñ mortaala joxoon ko waaye sëñ am satu Fall it benn doom bu góor lañ ko xamee mu tuddewoon ko mootaal mortaala joxaat ko ko nga xam ne ginnaaw sëñ Mor ginnaaw ñoom seeni i jur dem sëñ Mor Talla leen defal lenn ba si sëñ Abdou Aziz ba si moo leen defal li si des lépp bu dee sëñ Mor Talla moom sëñ am sëñ Abdou Roqee Fall mii si la mujj waaye bu dee sëñ Talla moom sëñ Bassirou Awa Jaxate si sëñ la moo moom la mujj kon buntu kër yi nga xam ne day ñetti buntu kër yi Cheikh Ibra fii leen soqi koo tey di fi toogee xam naa liñ bëggoon laaj sax leeral nga ko mooy kon lan moo waral seenu Euh, sofu si fii si kër gi leeral nga ko ngir ñoom ñëpp kii ku ne ku si ku si nekk si ñoom rek muy sëñ Bassirou Fall Awa Jaxate ak euh, sëñ Amsatou Fall seeni doom dañ koo tuddee sëñ Mortalla jébbal ko ko loolu kon firndeel na liggéey bu réy bi waaye tamit gis nañ itam bu bu ñu tollee fii ba si kasu jug bu ñu yóbbu ndog yi dañuy daal dem si penc ma nag fekk fa waa Mbawar waa ko sëñ sa Fall Mbawar ànd ak ñoom loolu boo ñu si doon leeral loolu waaw xam nga bu ñu fàttalikoo tuuti ay at si ginnaaw bi ñu nekk si daara ji sëñ Cheikh Fall Mboor bu masaana toggee fee da koy indi ba si biir kër sëñ Abdou booba dëkk bi melagul nii te booba ceeb la daan doon waaye sëñ Cheikh Fall Mboor day yenneeku booli ba sëñ Abdou Aziz génn ñëw xool bool yi ba lépp moom kii mu boole kooki boolam joxe ndigal ñu yanu dem mu mel ne looloot cëslaay la mooy sëñ Mambay ñaan bu nangoo sonal borom ndax sëñ Cheikh Fall Mboor damay dégg muy faral di wax ne dangay ngay sanc sa kër yor benn soxna yor benn néeg dem ba yàlla dogal nga yoru njaboot tabaxaat beneen néeg noonu ngay def noonu ngay def ba kër googu doonaat kër si biir kër gi loolee nag mooy sababub sëñ Seex Fall Mboor di toggee fee sëñ Abdou Roqee Fall di toggee fii te ginnaaw sëñ Mortala sëñ Mambay sëñ Aliou Fall Mboor moo uufoon njabootu siñ Mortala gi te sa jamono yooyee sëriñ Abdou Sis mën nañ ne moo doonoon taawam moo doonoon bras droit moo doonoon léppam comme na mu ko defee woon si sëñ Modou Binta defee ko sëñ Abdou Sakkoor noonu la ko defoon sëñ Aliou Fall Mbor loolee nag mooy sababu tey jii ba waxtu wu nu ndog yu sottee euh, waa kër sëñ Cheikh Fall Mbor yanoo fee ñëw taxaw fii si penc mi sëñ Abdou Roqe yi génn fi xam nga ne diggante bi dafa xat waaye su xatutoon la woon démb la la ñu indiwaat fii ndax sëñ Cheikh Fall Mbor day faral di wax ne lépp lu waaye defal sëñ Abdou Roqe ya moom nga ko defal ndax moom la waroon ndax ñoom ñaar ñoo bokkoon benn lal buñ daan tëdd sëñ Aliou Fall Mbor leen yar lii ci slayil liñ koy gisé ci ndog yi nga xamné waxtu wuna noppee rek euh, ndax lepp bu xajon si benn hôpital dañ koy def benn hôpital suñ noppé ñu do ko dem ndax soxna Fat Diop Sayer suñ mootaal ak suñ Aliou Fall Mboor loolee nag démbuloon tey door a kon dañuy ñaan ci doore Cheikh Ibrahima Fall and euh, bi suñ borom yagal ko te musul ñu ci saytaane ak lepp lo xamné day nuru ay gàllankoor suñ maam Bayloo jeuf jeuf jeuf waaw kay jeere ngeen jeuf mbokk yi ñi ngi toog ki nga xamanteni ni Serigne Mbacke ndjay mom serigne bare ndjay mi nga xamanteni ni moo yor kàddu kër gi di ko wax Mortala na jëriñ ji nga xam mom lañ fekk nak moy serigne Abdou khefal serigne bi Ndiaye yaaram ñu ngi lay nuyu baax te di la siaré assalamu alaykum mam baylo Lo ñoo ngi lay nuyu bu baax te di la dalal fi ci kër serigne mortal de la xamal ni fofé nga bayiko moy mooy kër maam Cheikh Ibra Fall di serigne Amdi Modou Mbène. ñu ngi ko ñaanal sama borom yàggal ko fi lool te may ko ak wér di ko ñaanal rakkam yëpp yi mu bokkal kër maam Cheikh Fall fii nga ñëw nag bi ëttub kër suñu waxtaane liggéey bi nga xam ne moom nga fekk ñu di ko liggéey maam Cheikh Ba Fall dañ koy liggéeyal te sëriñ am di Modou Mbène mooy maam Cheikh Ba Fall fii nag taali ndogu dafay yàgg waaye ñu fi def lu ne sëriñ am di lañ koy defal kon ñoo ngi ñaan li nga xam ne moom ngeen di jóg di ko jël si euh, dañ ci sàkku daal. mooy ngërëmal Serigne Touba ak maam Cheikh Ibra Fall kon nag loola itam façon ni yéen waxtu wu ne ñoo ngi ci ñoo ngi ci soññ suñu bopp diñ ci soññ mboolem kuñ ya bokkal kër Serigne Mortalla ak mboolem kuñ ba bokkal kër Serigne Bara Ndiaye loolu mooy lu nekk mm, kër gi nga bàyyi ko nag di Daaru Bayré TV euh, di këru Serigne Modou Fallilou Fall Serigne Modou lu Fall ñoo ngi ñaan yàlla na sa borom dolli ay leeram njaboot gi mu bàyyi di sëriñ Falilou Fall ak sëriñ Moustapha ak seeni rakk ñoo ngi leen di ñaan seenu jàgg bu baax a baax ndax xam nañu seenu taxawaay ci yoonu maam bii taxaw nañ ci niñ ci war a taxawee sant nañ leen gërëm nañ leen di ñaanal fan gudd wa ànd ko wér di xam ne liggéey bii ñuy liggéey nag ñun ñëpp ñoo ko bokk kon nag gannaaw ñun ñëpp ñoo ko bokk daal ñu sa war a soññi daal di leen soññi ñoo ngi soññi daal waxtu wu ne nañ fas yéene nekk ci ndigal te bu ko bu nu kenn fekk ci dara lu ñuy tere loolu mooy li nga xam ni loolu la ñu nekk bu baax a baax di ci soññ suñu bopp diñ ci soññ mboolem kon bokkal kër maam Cheikh Fall jërëjëf sëñ Modou Lo ah, sëñ Baye Lo ñoo ngi lay sant bu baax te di la gërëm bu baax yaa ki nga àndal jërëjëfati waaw waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf sant nañ baax suñu xol seet na bu baax la ilaha illallah laa ilaaha illallaah Maam Seex Faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Maam Seex Faal laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah Seex Ibra laa ilaaha illallaah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 خبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله شيخ خبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله مستوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله مستوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله موسى إلى إله Daaru Bayre Fall couture bii la ñëpp di wër ngir liggéey bu sell akub xarañ ci lu jëm ci wàllum ñawu góor ay modèle laxasaay Baye Fall yu taaru bundu kër Cheikh Rafaal yu couleur boo bëgg ak baylaat turki njaareem soin bu lépp la ñuy ñaw di jaay ba ci dàll costume africain ba ci mbaxana lépp disponible ci boutique ba doxantul gaaw mbaa nga woote fa def sa commande ñu jaay la Daaru Bayre Fall couture mi ngi Géejawaay ci amoo 6 dañuy livrer ba bitim réew numéro bi di 77 507 67 25 wala 77 640 93 10 yërmande misaal doley biir ak biteey laa ilaaha illallaah laa ilaaha illallaah